quelle que soit leur position politique. et puis position politique yow yow kii euh, euh, Mamy Samb mooy lan. ah Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nee mu ni far aayul yàlla moo njëkk far. Mhm. li aay kay mooy par parlo. parlo voilà. kay mu leer na la ne kii jàkkaarloog man kat ci li mu ne du yoon. Mhm. nga ne waaye man ànd naa ca mooy par parlo. Mhm. waaye mais jël position moom moom jël position kañ la ay mami man loolu léegi laa lay laaj ñaari cas daal ñu ngi nii. Mm. républicain yee ngi démocrate yee ngi. Mm. nga far fenn gis nga li xew Amérique basan waxtu wi dafa jot nag. pour sax nañ ñu def ko fii. Mm. mu bañ a nekkati ñetti téeméer rek nangam sangam ci ay parti ñuy organiser ay primaire rek mu nekk ñaari cas. ñu taxaw nii ñu taxaw nii. <laughs> waaw gis nga neutre neutre yi xaw ma. météorologue xaw ma ne. météorologue sax. météorologue sax. je suis pas dans. Fadou fii Fadou mu fee. non je suis pas dans ça. Euh, le débat ne me concerne pas. ak leen a concerne. Mm. concerne. Mm. waa soble bi concerné wu leen. ceeb bi concerné wu yow xanaa xam ne policiers yi ñu jël teg leen ci mbedd meeg gendarme yi mais ñoo gën a sonn Ismaïla Yacine xanaa ñoom duñ jënd ceeb boo déggal ñu naan waaw journaliste yi dañoo war a tëddee njaaxaanaay ndax tu ne peux pas être jugé par waa journaliste ñoom duñ jënd gaz. Mm. ñàkk démocratie bi am ci réew mi xanaa xamoo ci ñoom la commencé. ñaata yoon conférence de presse di am te yéen boo leen jugee ak seen i caméra génn rek ñu leen barricade nañ PRP euh, euh, wala PUR. waaw ngeen ñibbi yéen doo leen ko yëg. Mm-hmm. waa soble bi bu yokkee doo leen ko yëg yéen journaliste xanaa yéen yéen doo leen ay nit ñuy lekk yéen doo leen lekk soble doo leen di soos doo leen ceeb di yaasa. Ah, wala yéen ak ay seebam waaw. wala yéen ay extraterrestre ngeen yoo yéen ay malaaka ngeen doo leen lekk mais gis nga bu ñaari cas amoon. léegi lépp leer. waaye non ñun xam nga bon lii bëgguñ ci mêlé quoi. neutre. neutre. fu garaaw loolu. mais yàlla neutre la. déedéet. déedéet far te fi mu far sax. waaw mais dama ne yonent yi konteel benn par benn. waaw. ba ñuy ñëw ci ñoom fukk ak ñett ba ñuy ñëw ci ñoom juróom. waaye ñooñu jëluñu woon position wala wala wala woon man. lii mooy sama diine. Hmm. kii ñu wàccee téere bi ci moom kii ñu wàccee téere bi ñëw kii ñu wàccee téere bi ñëw ñu jël position ñii ne ñun ay jullit lañu. ku nekk am foo taxawe ku ne nga am foo taxawee nit da ngay am foo taxawee. Hmm. ay non man sawaay man moom faral ak Macky moo gën neutre. barki yàlla. toog ne man APR laa bokk man. waaye ñàkk far sax dafa amul. nga assumer ñàkk wax fi nga far. nga assumer ñu yàq réew mi ci nga bokk moom amul. assumé li ñuy yàq réew mi ci la bokk. Mm. loolu loolu ayib. waxal ne man ñu yàq réew mi ci laa bokk. yow yow balaa ngaa xuus ndax mën ngaa xuus lool. li dem bi yëg nga ne daw na démb laa lay laaj. BRT boobu ñun dañoo toog ñu yónnee ñu ay correspondance nañu dañuy def essai man dem naa ba démb sa ngoon gisuma BRT dégguma BRT te dañ ne woon lay déparé. ah, ah kon BRT bi fu daw. déggoo ma de dama ne. Mm. dañ ne woon wax ko suñu préfet du département wax ko toutes les autorités du département mais BRT bi suba phase test bi géejawaay xanaa xamoon na yow géejawaay fii la fii la fii la fii la kii bi nekk dépôt bi fii la nekk. Hmm. dépôt bi fii la nekk. Macky ba muy teg pose première pierre fii la ko defee géejawaay. Hmm. bu koy inauguré fii la koy defee. Hmm. bu ñuy fas test fii lañ ko war a defee. nañ bàyyi chaque jour di indi wàllum politique mais ñoo xam moo ma jaaxal de man daal jékki-jékki naa gis ci réseaux sociaux yi ma gis seen. bis yi daw na de daw na de. daal ñu dawal ko. ñu ne daw na de peut-être booru Liberté 6 biir Ndakaaru jaajël Diop. waaye en tout cas fii nga xam ne fii la dépôt bi ne dañoo siisu. dañuy siisu de. doy na fii ba deux mille vingt set lu mu siisu siisu siisu fii yeewee fi ne lii la yàlla dogal. waa léegi yéen lu mu taw géejawaay géejawaay wiiri wiiri jaari ndaare di ngeen ko inauguré. waa léegi yéen Yewwi Wi démb def ngeen benn point de en tout cas groupe parlementaire. nga xam ne bu Yewwi Askan Wi def ngeen point de presse démb. ñu ngi yëg ci yéen kaay yi ne également da ngeen waroon a dem Touba tey c'est une information vérifiée ou pas. waaw dañuy dem Touba. incha allah incha allah rabbi mu jugee fii. Hmm. Touba laa jëm. lan moo tax justement démarche dem seeti kilifa diine yi alors que am na ñu ndaw ñuy wax ne euh, dëgg-dëgg tey jii bu ñu joxul cër euh, kilifa diine yi xale yi saaga yooyu nouvelle forme de politique bi fi am. wallaay wallaay gis nga mami mami gis nga bu occasion amee ñu ciy profité dañuy bari barki démb dama toog fii wax ne kan moo mës a gis président Ousmane Sonko parce que yenn ci waa Pastef lañ koy jiin. ñenn mm. ci ñoom lañ koy jiin jiinuñu ko waa waa APR. te mën na nekk sax ñoom. parce que dafa am foo xam ne bu fa mbir tolloo wax naa ko fii keroog paasal ma ne seetlu leen de di nga gis ñoo xam ne dañuy def profilu Ousmane Sonko photo Ousmane Sonko moom la ñuy def wallaay bokkuñu Pastef c'est de bonne guerre. occasion am na ñu prox la ca te boo seetloo dañuy dugg nag ci plateforme yëpp dañuy dugg Walf dañuy dugg 2A. <laughs> ñun jàpp ne ñii ñii ñoom liggéeyu journalisme bi ci boppam dañ koy def plateforme yooyu la ñuy gën a infiltré doole gis ñu dugg ay RTS ak tele yi nga xam ne dañ koo jiin Macky ba leer na leen ne ñii moom Macky la mais ñi nga xam ne dañoo mel dañ ne ñii ay journaliste leen nit mënu leen a tere def seen liggéey bi ak éthique ak déontologie plateforme yooyu rek la ñuy dugg di ruube xam nga Pa Assane kan moo koy xool wala nga xool Nabou Cor wala nga xool euh, kii Mami sàmb man sax garaaw la nee waxal parce que man moom man moom man man moom maa nga ca biir man de man moom man jë damaa jël position ñii moom ay journaliste lañ sax déggoo ma de mais ngay xalaat ne ñii dañu yàqal Ousmane Sonko mm-hmm. deux ans ku wax dëgg rek rek rek rek te yàlla tax. Mm-hmm. kan mooy xalaat ne deux ans day yàqal Ousmane Sonko. Walfadjri moom li leen nguur gi meree du dara lu dul ñii Ousmane li ñuy liggéeyal yàlla na yàlla jéggal te liggéeyaluñ Ousmane. keroog ba ñu tëjee Walfadjri ba ma fa demee Cheikh Niass toog ñu ànd groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ci kanam Birame Souleye ñu ne ma yow yaay wax ñu jox ma kàddu gi ma ne ñu bëree bëri dañoo yaakaar ne yéen ay Pastefien ngeen juum gi juum nañ bu leen neexee vote bi nag ngeen dem votali Ousmane Sonko mais Walfadjri nii la meloon tamit Abdou ak Abdou Diouf. waaw moom laa wax ak Abdou Diouf <laughs> ba waa Abdou yi meex ñoo su defee di leen attaqué leen kaas nañ lii bu tey doon démb duñ ko def. Mhm. Abdoulaye Wade ak ay nitam jàpp na ñii man lañ faral. Mhm. waaye ba jëlee nguur ga. Mhm. waaye jàpp ñoom dem si yàlla Sidy Lamine Niass. lañ tëj Sud FM fajaru leen. ak seen seen fajar ñaar ñoom ñaar ñëpp. ak ak tëj ak tëj dem fa. di leen masaw di leen masaw waaw bi Macky Sall nu mu demee. <laughs> ma ne leen ba Pastef toog ba Ousmane toog ci ngeen di xam ne Walf Walf Walf politique ñu mm-hmm. ligne éditoriale salé moom lañ yor la mm-hmm. train qui arrive à l'heure man soble bu Macky Sall wàññi ñun bëggum wàññi tali yu mu defar mais lu tax ba du ko def mm-hmm. ah, il sont payés pour ça ils ont été mis dans de très bonnes conditions pour condition sénégalais yi mën a ñoŋ nga defar pro di jubilé indi car di jubilé waaw loolu mooy lan ba pare ñenn ñi di la woo téléphone naan wax ci wax na nga ci wax nag wax leen ci <laughs> wax ci. pourtant de léegi mën nañu jàpp ne wax dëgg yàlla xeex bi yéen weetu leen ci rek waa groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ndax ñu ngi wax ne aussi am na 142 universitaires yoo xam ne ñoom ñëpp ah, dañoo ils ont invité voilà le le président de la République Macky a à libérer Ousmane Sonko mën nañ ci lim Serigne Diop ancien ministre de la justice boo xam ne